Fanta Mbuub ak dama bëgg leeral leen ci diggante bi Fanta Mbuub ak Mame Ndiaye Savon yàgg def na lu ne ñoom ñaar Fanta Mbuub du wax ak yaayu Mame Ndiaye Savon ba di ko enregistré sequl ak lu muy waxee yaayu Mame Ndiaye Savon sequl ak lu muy rendre compte yaayu Mame Ndiaye Savon Fanta Mbuub bu amee lu muy wax Mame Ndiaye Savon la koy wax bu amee lu muy jokkalanteel Mame Ndiaye safoo la koy jokkalanteel parce que du moom ak yaayu Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye Savon du moro yaayam du moroomam amul lu muy wax ak moom kon Sokono SRS day duul dama bëgg loolu mu leer dama bëgg loolu ma leeral ne ko fii Sokono SS bu amee benn vocal boo xam ne Fanta Mboup moo ciy wax ak yaayu euh, Mame Ndiaye Savon na katt ndayam ci internet bi bës lay wër day duul tojal sa cot nday soko nga dem wutile sa yaay dus bu mu dayee yaraax gi yëpp day na ko soko sa yaay ci tefesu yaraax gi lay day dayam yi muy day ak géej gi ah ñoom ñooy mélangeoo fi mu toll nii lébu yi bu ñuy nappi jën ku jëqati jën rek day lonkaale sa dayu nay wi nekk ci géej ga parce que amul fu mu dayee loolu lébu yi ñu ngi koy naqarlu wutal ko duus bu mu puube bala ngaa duul yow moom yaa gën a feebar soo ko yow li la dal bu ma daloon ma bàyyi tiktok sa yaay amul duus condition yi ñaaw na sa yaay wow na sa yaay ngi mel ne euh, euh, euh, ngaamam yu dugg yi na ay karbetu muus bakkanam gi nag ay leer bëtam yu nuux mel na kàmb bopp bi def istrid sa yaay kenn xamul lu muy dural ah boo ko xoolee ak bayu indisposé benn la tojal sa cott day nga lijjanti sa yaay ji wopp jële bàyyi <laughs> gaa yi ak may laaj résultat yi suba <laughs> ñu bëri bi dina ma ne boss <laughs> résultat yi suba yow lañ ciy xaar waaw ah. acca gaa yi ñu bu yéeg

njaago bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaare di leen bëggee gars yi tàmpate leen eh, tàmpate leen écran mu àgg cent mille tàmpataas waaye tàmpate leen écran bi mu àgg cent mille tàmpataas tàmpate leen mu àgg cent mille laay gaaw sama yaram mën a tàng tàmpate leen écran bi tàmpate leen mu àgg cent mille gaaw waaye na gaaw tuuti gars yi rek ma commencé

gars yi 100000 tapotage bu merci beaucoup prince prince mon ami comment merci beaucoup mon ami prince thank you thank you very much thank you very much mon ami Aliou ah on est à 6000 personnes sama yaram tey di gën a bëgg yéen moo tàngee aja gars yi léegi nag gars yi partagez le live bu nu àggee 6000 lañ ma commencé. six mille personnes moom damay commencé wax léegi nag luy ñëw fekk ma fi mais six moom damay commencé waaw six mille personnes damay commencé six mille du ma leen xaar de déedéet man awuma temps di xaar nit ñi ñu ñëw six mille doomu aadama bu nu taxawee damay commencé te jaw nañ damay commencé de damay commencé waaw lu ma wax duma ci jaaraat nag déglu leen attentivement tey enregistré di téye parce que ay waxu Adama benn yoon lay génn du génnaat parce que man lu ma wax loo yóbbul lu may appliqué loo yóbbul kon bu Adama di wax da ngeen di concentré wu ngeen enregistré dagg téye jël li ngeen di dagg teg journal yi bind l'observateur wax journaliste yi génne télé yi publicité bu jeex samay wax yóbbul waaw merci beaucoup prince thank you very much non maa bëri doole nag xale yi dañuy laay fantalu man dama bari doole eh man dama bëri ndeyi doole loo ma xeex xeex contre ma contre ma nangul ne aadama bi yàlla da koo may waaw man 2019 ba tey maa ngi téye réew mi nii barki Serigne Babacar Sy du ma xof du ma daay kenn mënu maa xoqatal aw ma lu may ragal aw ma lu may tiit te su ma wootee sénégalais yëpp ñëw looloo yëpp nit ñi maanaam aadama lan moo tax bu wootee nit ñi yàq seen lutte yëpp ñëw seetaan si parce que man la eh boss day négri bu leen may jëggal waay sama yaram day tàng waay bu leen man la Adama waay ah man damay nit damay nit man léegi nag léegi nag gars def naa benn vidéo dugal naa ko ci maam njaay Savon déglu leen ma attentivement ma wax leen maam Ndiaye Savon ci boppam déglu leen ma de Mame Ndiaye Savon ci boppam moom la nit ñi waxul dëgg maam sama xarit la ba ma ko xamee yàgg na juróomi at bokk nañ ko groupe maam lépp loo doon def dama ciy ànd ak yow mais bii laa àndul ak yow waaw maam pourquoi ngay nangu sa di dugg ci ay live léegi kay boo taalal nga live sa yaay sa baay ci des taalal live sa baay maam taalal nga ku nekk live taalal nga sa yaay live kon kay taalalal sa baay ta sa baay na xaar turam dina ñëw non taalalal sa baay live sa baay live sa yaay taalal nga ko pare maam maam maam maam Ndiaye Savon ñaata yoon laa la woo maam ñaata yoon laa la woo maam ñaata yoon laa la woo maam dara yaa ngi dégg danga nga daan ñaanatu di foraatu dem marché seng di xuslu di fanaan ci ay laytaay ay mbéj mu lay ñaanal di la ñaanal di la ñaanal ba nga juddu tey ngay jaay xeesal yàlla mën a def ne sa tekki yow kat jógewul ca keccax ba nga doon jaay wala dàmba ya mais bi nga jógee ci xeesal maanaam loo xam ne day ñoral der nga tekki ci war a geestu sa yaay yi maam yow nit bu la waxee rek nga gëm loo la nit wax ci nit nga gëm sa diggante yow ak sa yaay waroo nangu mbindeef di ko yàq yow ak sa famille waroo cee nangoo dugal kenn famille c'est sacré maam barki Serigne Babacar Sy ñu toog fii ci live bi huit mille personnes yi yëpp ñu ñàkk seen yaay yal na leen seen yaay yaa ngi dégg yal na ko yàlla xaare àjjana mais ñi nga xam ne am na yaay xam nga lan leen di ñaan maam am teraanga yu bëri ba seen yaay xoolal xoolal ba jël ko jox ko seen yaay ñoom bu doon toog ba vidde sax na seen yaay kontaan ci ñoom maam ngay tàngal sa xolu yaay maam ngay tàngal sa xolu yaay man li ma gën a metti mooy sa yaay dafa dugg ci benn live di wax ñoom vraiment tata vraiment caga yu kat ndeyam yooyu indisposé caga yu ubbi seen lëfal ndeyu ci Allemagne di yuuxu sa yaay ak di ko gëdd di ko manque de respect mais yow yaa ko bayee maam boo amoon ful la sa yaay doo ko taalal sax maam même bu fekkee sa yaay dafa yor ay ojo wax ko ay nit ojo yi yow mii nan ko wax maam buñ la ko waxee nga woo sa yaay waxtaan ak moom woo Kumba ja waxtaan ak moom maam lan moo tax ngay taan live di naan samay mbokk dan may yàq sama yaay dama doon yàq ak Kumba ja pourquoi maam kenn waxu la dëgg nit da am kilifa sa yaay sa yaay la léegi dañuy déglu sa li mu expliqué ñu déglu yow li nga expliqué après ñu waxaat suñu xalaat xaaral ba ñëw. ñu déglu. moom moo jël kër dugal ma ci dugal ci ay raxam te ñun ñëpp dañoo nekkoon suñu jàmm nekk suñu salaam lu yee suñu léebi lekk di kenn xamal ñu dara. moom moo ñu dugal internet ba àdduna bi yëpp xam ni li mu jotee ak ay raqam yéen xamul leen xamul jotewut ak fii sax benn raqam moom ak ay raqam ñu ngi wax doomam yaa ngi nii fii kër yëpp fi am problème amul kër gu amul problème te ñu ngi koy lijjanti te kenn du yëg ma Samba du yëg ma Demba du yëg moom nag problème bu mu am internet la koy fajee internet a ngi noonu mi ngi noonu. moom moo tax nit ñi di ñu saaga moom moo tax nit ñi di ñu. man ma euh, kay man maam na problème wax ko ci internet nit ñi dégg ko waaye du ñëw toog sama lal bi na ma yaay nangam ak nangam est-ce ko kanam boo xamante ne. déglul déglul déglul déglu leen rek. déglu leen réemaa caga bu ubbil lafal ndeyam bi saytaane yu kat si day yi réemaa nga xam ne dafa cagatu ba data bi ndoxum siti tata réemaa mu ubbil lafal ndeyam mi nekk Allemagne di wax sa yaay naan ko yow est may nga ko yaa leen ko may. yaa leen ko may maam yow yaa ñàkk fay dañuy këlli-këllee sa yaay ci internet bi di toroxal sa yaay naan ko fenkat laa sa yaay naa féq laa ku bon la nga di ko nangu yow yaa ñàkk fay fayda yow yaa ñàkk fu la maam li ma gën a metti ba metti ma mooy danga nga wax benn vidéo déglul lii dama koo seetaan sama yaram daw déglul déglu leen sama dépense. barki Serigne Babacar Si lii bu ma ko waxoon sama yaay dootul lekkati sama xaalis ba ma may dee ak fulla sama yaay añ bi mu lekkee tey maam Ndiaye Savon ne sama dépense la mais boo joxul sa mu lekk kan moo koy jox mu lekk day yelwaani sa yaay yow boo ko joxul mu lekk ak li ngay wane wu ne am nga yëpp boo joxul sa yaay mu lekk kan moo koy jox day dem sukk di raam bal na Ndiaye Ndiaye maam Ndiaye Savon may leen ba ma lekk dama am xiif may leen ma ñaar dara fukki dara mu fa. boo ko joxul mu lekk kan moo koy jox maam maam boo joxul sa yaay lekk ko koy jox non maam xamoo waxit lii nii bu ma ko yëkkati woon wax ko sama yaay dootul lekkati sama xaalis man ba ma may dee barki Sëriñ Babacar Si boo joxul sa yaay kan moo koy jox mu lekk waaye yéen maam Ndiaye est-ce que na déglu leen vidéo bu baax bi wàññee tey sama dépense la man sama dépense kon maam ah, bi mu añee tey sama dépense la man sama dépense maam boo joxul sa yaay añ kan moo ko koy jox maam Ndiaye Savon xanaa sa yaay doo ko bàyyi muy yelwaani. xanaa sa yaay du dem ci ku mel ne Sokono SS doomu xaram bi nga xam ne yaay umul dus bu mu dayee di ko yelwaan pour mën a añ maam ay wax dañ koy seetaan maam yow mii yaa bew yow yaa xamul say mbokk bëri na ñu bari ci ñoom dañuy tëddaxe rek di xas yaayu maam Ndiaye Savon di xas eh, ki nga xam ne moom mooy Kumba Dia naan Kumba Dia dulkat la dafa soxor dafa iñaan toppuñu lan moo waral wax ji am ci diggante moom ak Kumba Dia ci kaw rek li ñu gis mais ci suus am na lu bari mais maam boo yoree say teere yoo jënd jënd say oto loolu yow la intéressé mais man de bala maa defal sama benn mbokk fuu ak dayu fuu gannaaw fuu ak maamu fuu ak marxaw kuy fuu dama koy dégg barke Serigne baaba Sy damay njëkkee ci sama yaay jox ko oto bu rafet dëkkal ko ci kër gu baax jël xaalis bu bëri jox ko Kumba Dia génnal ko oto bu baax sanix bii lu mu bon bon ma jox ko oto bu baax bu dee li may naan dama koo am moo nekk ci man laa wax de dama koy def bala maa ñëw ci fu fuu du lëfal ndeyam fuu lan la ab simple jaaykatu diw rek xaw ma assistance buy ànd ak yow di lagar lagar yi boo dee ko boo dee tukki moom boo mu nekk ci ginnaaw gis naa vidéo boo xam ne yéen ñaara boo ko dégg ci kilifa gu toll ne yow amoon ay jëkkër wala boo nga nekkoon ci sëy di bokk ak fu nekk lu mu nekk nekk sa xarit lu mu nekk nekk respect da koy am fu waroo tëdd fu muy tëdd fooy simmee sax sa silib dafa génn fu waru faa tëdd waxuma laa yow nga bu la waxee rek fu fu ah man damaa ragal fu dalaa yóbbu ci sëriñ liggéey la ba ngay wax rek di jabatu wala bu liggéey la dëddal la ak sa yaay demal seeti sa bopp wala say mbokk nit ku nekk mbokkam la am ku nekk mbokkam la am ah maam Njaay mi ngi maye ay oto mais ku Ja yoon la mu may ko oto parce que ñoo bokk ndey baay maam Njaay mi ngi joxe ay oto ñeneen mais yoon la yaayam ji ko jur ci biiram mu may ko oto wutal ko kër c'est tout à fait normal mais sama yaay sama dépasse bi mu lekk tey xaalis bi mu lekk sama dépasse la maam loolu ba koy wax foog naa waroon ngaa rus sax ñepp lu toll loolu maam nit ñi danañ la xeeb sa yaay boo ko joxul dépasse kan moo koy jox maam sa yaay boo ko joxul dépasse bu muy lekk kan moo ko koy jox te mu ëmb la juróom-ñetti weer yow defaloo sa yaay dara maam xam nga lan mooy sa problème loo def wax ko nit ñi la dàq defal seen yaay yi foofu li ma defal sama yaay de man du ma toog fii di ko wax mais bu nu analyser li nga defal sa yaay analyser man li ma defal sama yaay nit ñi dañ lay xeeb te du ma toog di ko wax mais déglu leen maam Ndiaye Savon non maam tey dama ko weddi nanu déglu nanu déglu. ko fu mu tool musuma ko toroxal musuma bañ a wane sama yaay musuñu bëgg a bëgg a toroxal sama yaay kon tey soo amee ay doom bu déglu ndax tey boo déglu rek nga mere sa doom. man defuma lu damay jënd or damay joxe dépense dëkkal leen dëkkoo leen moom nag lu wax naa waa léegi lii kan la intéresé maam or yi ngay jëndal sa yaay dépense bi nga leen di jox da ciy rendre compte fii nii ci tiktok bi dama la koy laaj dépense booy jox sa ndey mu di ko lekk or yoo koy jëndal kan nga ciy rendre compte amul ku mu intéressé parce que boo ko joxee sa yaay dafa war waaw maam boo jëndee ay or jox ko sa yaay lu war la boo tabaxee immeuble ba mu rafet ba mu mel ne xolal la maam boo jëloon jamaa àmbale ko ba mu dëgër jox sa yaay lu war la kan nga ciy rendre compte fii pour ñu ne la defal nga sa yaay yaa ñàkk fayda maam yaa ñàkk fayda barki Serigne Babacar si doo dit sax man damaa rut sax maa koy jox dépasse sama dépasse lay lekk dépasse bi sa yaay dépassoo nga ne tey sa xaalis la yow lii bu ma ko waxoon sama yaay du lekkati sama xaalis man ba àdduna di tukki lan mooy dépasse cinq mille francs mille cinq cent cinq mille francs dix mille mooy dépasse nga naan bi mu mu lekk sama xaalis yaa ko war a jox soo ko jox kan ma koy jox xanaa nga jéggal ma ci kàddu bi eh xanaa sa yaay du dem ci bedd bi lu toll nii yaay maam Ndiaye Savon di ñaan. Sénégalais yi benn affaire laa bëgg bu leer ci seen bopp maam Ndiaye Savon dañu koo war a wax dëgg waxam bëri na torop lu muy defal ay waajuram ak lu muy defal yaayam da ko koo war a defal dañ ko wax dëgg amul comme ci rendre compte yaayam ji muy jël di ko këlli këllee xale yu ndaw yi di ko taf di ko saaga. ci ay yu ndaw wala tasaarement caga yu kat sedd yi di ko yuuxu ci kaw live maam moo leen ko may maam bu jëlul woon ay waxu yaayam ak i sëram indi ko ci kaw tiktok bii kenn du togg toggee yaayam ba muy dugg ci tiktok léegi nag laay fal na ndayam laay fal bàyyi ma ci des papaam na toog farankulaayu bu dee ma ngay dund xam ne maam Ndiaye Savon dina ko taala live comme ni mu taalee live ndayam bu fekkee dundul na fëgg waa àllaaxira ba nu jë ba ñu ba nu wuyu ko mu ne leen toog leen benn une heure ba laay fal ma ñu duggaat ci bàmmeel yi ndax fa la jëm damaa rus sénégalais yi billaahi dama rus maam yaay kenn mënu koo fay maam kaaba ga nga xamante nii falan denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi di dem di ko siyaare ji dem ba màkka waxuma la màkka de mais bu yàlla waxoon na yow kaaba gi yow yaay borom maanaam nga jël kaaba gi yenn ko tegal ko ca sa yaay nii kenn du demati màkka yow dañuy siyaare sa yaay rek dem te mel ne ku siyaare màkka defaloo ko dara ba tey des na ba tey des na waxuma laa ngay toog ci live naan dépasse bi mu lekk tey maa ko jox kan moo ko war a jox kan léegi nag gars damay ñëw ci affaire audio yi Sokono SRS dama ko gis muy live di dul lekk naan Fanta Mbuub ah, ñu bari mi ngi leen mi ngi ndax seen xel yi naan Fanta Mbuub moo enregistré yaayu maam nangam nangam déedéet Fanta Mbuub mu sa ku bëgg Maam Ndiaye Savon la ak dama bëgg leeral leen ci diggante bi Fanta Mbuub ak Maam Ndiaye yàgg def na lu ne ñoom ñaar Fanta Mbuub du wax ak yaayu Maam Ndiaye Savon ba di ko enregistré sequl ak lu muy waxee yaayu Maam Ndiaye Savon sequl ak lu muy rendre compte yaayu Maam Ndiaye Savon Fanta Mbuub bu amee lu muy wax Maam Ndiaye Savon la koy wax bu amee lu muy jokkalanteel Maam Ndiaye Savon la koy jokkalanteel parce que du moom ak yaayu Maam Ndiaye Savon Maam Ndiaye Savon du moro yaayam du moroomam amul lu muy wax ak moom kon Sokono SRS day duul dama bëgg loolu mu leer dama bëgg loolu ma leeral ne ko fii Sokono SS bu amee benn vocal boo xam ne fantôme bu moo ciy wax ak yaayu euh, Mame Ndiaye Savon na katt ndeyam ci internet bi bës lay wër day duul tajal sa cott nday soko nga dem wuti la sa yaay dus bu mu dayee yaraax gi yëpp day na ko soko sa yaay ci tefesu yaraax gi lay day dayam yi muy day ak géej gi ah ñoom ñooy mélangeoo fi mu nii lébu yi bu ni nappi jën ku jëkkati jën rek day lonkaale sa dayu nday wi nekk ci géej ga parce que amul fu mu dayee loolu lébu yi ñu ngi koy naqarlu wutal ko duus bu mu puube bala ngaa yow moom yaa gën a feebar yow li la dal bu ma daloon ma bàyyi tiktok sa yaay amul duus condition yi ñaaw na sa yaay wow na sa yaay ngi mel ne euh, euh, euh, ngaamam yu dugg yi na ay karbetu muus ba kanam gi dem ay bëtam yu duux bi nag kàmb bopp bi def istrid sa yaay kenn xamul lu muy dural ah boo ko xoolee ak ba yu indisposé benn tajal sa cott nday nga lijjanti sa yaay ji wopp jële bàyyi ñi ngay fenal ak duulal waaw léegi nag euh. Sì, sì, dammi, dopo è qua. Dopo, amore. Yéen a may dégg ah soo ko doon essayé. Fanta Mbuub nag boo ko mënoon a jot dinaa ko jot léegi ndax maa ngi ko doon jéem a contacter. Fanta Mbuub moom Fanta Mbuub ndax dinañ ko mën a woo appel normal xaaral ma xool ba xam. Fanta Mbuub du def lu bon barki Serigne Babacar Si du ko wax Fanta sama doomu bàjjan la Fanta dafa bëggul ku ko yeb moo tax ni ngeen koy gisee noonu dafa mën a xuleeku bëggul ku ko yeb boo ko naree yeb rek mu génn leeral ay kàddoom soo ko mën a duul ak jaxase ay nit di duul naan waaw Fanta moom ma gis jof yi di ci am naan waaw Fanta moom bëggul maam wala yàgg naa def lii yéen a ngi bàkkaaru de lii la la day sone lii mooy xanaa li Tigo la naa Sénégal nag xanaa li Tigo la yéen ay coupé na daa am woote waat fanta mbub de bu ma kattee sa ndey yow tamit ngay def ak sa sa yaram bu bëri boobu di mel ne ngay mel ne bàmmeelu nag bu ma dëggee sa day di nga jël sa téléphone bii. sama message woo ma te nga sa cottu ndey woo ma doomu xaraam ji te yow tamit lii manqué ak ñàkk fayda rek a tax fu gis di la sosal parce que sa yaram bi moo bëri faaw nga wàññi sa geres gi. demal ndeyu opéré gi fànta mbuub sa fàmb yi nga dindi ko yaa ngi mi ne nagu dëj cottu ndayu lii rek sama mbokk la di sama doomu bàjjan la dafal ndeyu lii léegi na gars li ma doon wax mi ngi noonu maam Ndiaye Savon dafa ëppal teeyul maam Ndiaye fami c'est sacré bu ci dugal nit sa digganteek sa yaay bu ci dugal doomu aadama sa digganteeg Kumba Ja bu ci dugal doomu aadama ñi nekk ci tiktok bi ay seytaane lan da ngay gis ku jóge fee naan la maam sa yaay daa bon sa yaay kay moom dafa iñaan dafa soxor Kumba Ja moom ku bon la ko surtout jigéen ñi amul cott ndeyam nag jigéen ñi nga xam ne rafetul ay mànkaalan tekkiwul dara seen yaay tekkiwul seen papa tekkiwul cagatu la ñuy liggéey topp tiktok bi topp kaa yi kat nañ leen ba seen weer yi bu nekkoon west sax jóge na fa doon na lest wala yii seen weer yi ña nga ca océan Atlantique wala océan beneen boo ko mënoon tudd Méditerranée ñoom ñoo lay tiim rek topp la nag naan la maam Kumba Dia dafa bon Kumba Dia moom il est dafa soxor sa yaay daa bon bu ko defee nag nga jëfaru nag naan sama yaay sama wéroo da nga dof parce que benn nopp nga wéroo sa digganteeg sa mbokk yow ku ñëw naan la sa yaay dafa bon doo toj cott ndeyam sa yaay ji la indi juróom-ñeenti yéen ku ñëw sa nopp bi naan la sa yaay dalaa soxore doo ŋayi bu nu ndeyam dem jël mbóot yëpp roof ko ci kumba ja nga bokk ak moom ndey ay nit di ñëw yaa ko mayee ak sa bi yow mii yaa bew yow yaa fuuy yow yaa réew yow yaa amul kilifa yow yaa xamadi yaa ñàkk fayda yow wii la maam jaay aw ma ku may waxal yaa ko may naa nangu sama yaay man ak ni ma mel ci réew mi ay xale yu ndaw di ko këlli këllee naan sa yaayee bon nga koy accamte yowa ah, yaa bëgg ñu wax ko ko ñàkk fayda bay bëgg a dee yow sa yaay ëmb la juróom-ñetti weer ah yow nga war a sant sa yaay ah maam bëgg a juddoo génn bu nu neexoon ñu jaawale la animaux yi ba nga juddoo ba ngay doog a judd nekk liir buñ la jëloon yenn yenn yóbbu parc an doo dellu si ndax sa mbokk yi dañ lay téye sa yaay rek ay ñibbi mu jur na nag fopp pobal la defar la ba nga jekk maam sang la ba nga set ba tey nga mën a jaay xeesal xeesal bi dimbali la tuuti nga commencé leer xet commencé belli lii doo sant sa yaay nga ne yow daan danga koy tàndaas maa koy jox dépense ku ko koy jox boo ko joxul yaa yow yaa réew yaa yaa réew waay eh soo joxul sa yaay dépense ku ko koy jox da koy de wuti ci xale yu góor yi sama dépense bi mu lekk tey man la mais yow la war a doon ah waaw waaw yow la war a doon li mu war a lekk ci yow moo bëri ah ah oto yi ngay jox fuu di ko jox ñeneen sa yaay mérito na ko Kumba a mérito na ko ku la ko waxul naa féq la bu la neexee nag nga déglu ko la neex. caga ju perte ji nga xam ne nii ay tataare maak ay rok su fële caga perte ji nga xam ne tekkiwul sarak ndayam ñooy toog naan la waaw waaw moom kay mbokk yi dan kaa saxare moom dafa bon moom da ko teg bët maam xale la magum jëmu mu am ay doom yu mag maam di sama xarit ba muy sëy tas ak jëkkër ji yaa ngi dégg ba tey ni muy amaat keneen xam ngeen kañ la xam ngeen nan la jàkkonteel sa sëy ba xam ngeen yan situation la tolloon doom yi ba muy génn xam ngeen du ma génne ngeen naan xale la du ngeen duul ku ngeen gis ci TikTok bi xamu leen démbam di di xëcc xaritoo xalala daa kii testanu maam yi rek waay non yéen wéru leen quoi bu leen ma wax loo waay bu leen ma wax loo waay tey sama yaram neexul de barki Serigne Babacar tey dama am lu ma metti ba ma gisee yaay maam Ndiaye Savon ñu koy yuuxu ci internet bi ay xale yu ndaw ci laayef maam yi moo ko maye. ba ma gisee maam Ndiaye Savon mu naan sama yaay maa koy jox dépense bi mu lekk tey xaalis bi mu lekk tey sama xaalis la maa koy jox yow boo ko jox koy damaa rus maanaam tey billaahi sama yaram bi damaa tàng tey dama am lu ma métti torop ci maam Ndiaye Savon bii barki Serigne Babacar Sy billaahi walaay wa taalaay def leen attention de dafa am lu laxaasu ci biir famille bi te xamu leen ko maanaam maam Ndiaye dafa am yu muy defal ay nit muy dem ci kaw mais li ci suus ak famille bi li muy dunde bàyyi leen bu ñëwee wax leen rek ngeen commencé di tarari songu yaay ji wala songu sëriñ déedéet nan ci def attention saytu boobu bi di saaga tey moom la dama koo déglu jooy nee na ma buñ ma saagaa tey di ma taf ci internet bi di ma saaga moom mii la mais moo ko maye parce que tey yaayam dafa dugg live di expliquer xoolal tataare maan caga bu katt lëfal ndeyam bi ni mu tontoo yaay ji daf maa metti yow yaa kat sa ndey vraiment caga bu bon bi loolu maama ko maye te nag maam dafa mel ne moom daa am ñu mu ñeme am ñu mu ragal ci internet bi am na ñoo xam ne boo leen tuddee du dugg ci ñoom barki Serigne Babacar si mais bu dee caga ju ndaw jeeg ñu gaaw a jooy yi ñooñu maam ñeme ne leen daa am ñu mu ñeme daa am ñu mu ñeme ak ñu mu ñemewul de yéen nag loolu xamu leen ko dafa am ñu muy song ak ñu mu ñeme ak ñu mu ñemewul ci ci internet bi yéen loolu ba tey xamu leen ko moom ñu gaaw a jooy ñi rek lay xool ñiy patine di lox di jooy di ñaq di puub di toog di doxat ñooñu lay war di dugg seen garde ñi waaye ñi nga xam ne bu nu doxatee ren bala ñoo doxataan at mi dina ñëw ba ñëwaat duñu toog ñaq te duñ tiit caga kooba nee la leen di tegee xam naa li ma leen di wax maam rek laa xam nee naa leen juróomi at ñi ngi bokk groupe man ak moom juróomi at yàlla maam yaay laa ko doon woowee xam situation xam situation fant maman vulgaire bi ma xam si xam situation xam leen ñoom ñëpp téye leen ci sama loxo bii mais tey damaa am gàcce ndax dama rus tey dama koo fëralul mere ko li ma ko wax lii lépp dama koo mere maa tey parce que li mu wax yaayam ak li mu ñàkkalee yaayam fay fayda loolu moo ma metti parce que man dama bëgg bëgg yaayam man bu ma dee gis nit defal yaayam damay kontaan moo tax buuse ko ma bëgg ko lu ma mën a am wax leen ko lu leen neex mais bëgg na yaay ji yaay ji day kontaan ci moom toujours loolu laa bëgg mais jàpp sa yaay ñu koy saaga jàpp sa yaay ñu koy xas si internet bi jàpp sa yaay di ko dugal ci live ay nit di ko yuux yow nga génn naan sama yaay maa koy jëndal or sama yaay sama dépense lay lekk sama yaay ma tabax dugal loolu gàcce la woo maam yaa ngi may rusloo soo ko deful ku koy def ki la ëmb juróom-ñeenti weer ba tey ngay jaay xeesal nit ñi mën laa dégg kooku danga nga am fayam. nee naa la boo juddu woon mu yóbbu la delloo su ndax sa mbokk yàlla fay téye boo juddu woon mu toog ci sa biir bi nga dee kenn waxatu la da naan de accouchement la rek ndax reyu la loolu lépp defu ko loolu lépp defu ko màggal la teg la fa mu a teg mais millions yi bu ñëwee da ko faa xaar nag <laughs> sa yaay da ko liggéey boo ko joxee ay millions wala dépace wala kër mais da ko faa xaar da ko faa liggéey ndax moo la jur. rus di ko wax ci live loolu.